dañoo fas yéene ndax mbokk yi boobu si di amee ay rubrique am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi le premier septembre lañu nekk tey 2021 comme niñ ko waxee rek dégg ngeen fa ñu tëje ca anniversaire ba ak man waaye li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indil muy sunu làmb les arènes ñu dikkaat geen yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah. mercredi premier septembre deux mille vingt et dañu dañuy ñëw ak yëglikaay suñu làmb la ni xëy doore ko yëglikaay bi nag tey la mu xëy ñëw andil ko maanaam daal boo bëggee dégg-dëgg at mii nga xam ne moom moo jeex ci wàllum làmb moom la yëglikaay bi topp la ca am ci ay journée ak bés ya ñu bëre ak promoteur ya nga xam ne moo ñoom ñoo ca tëgg ay combat ak site ya nga xam ne maanaam place ya ñu ko bëree bu dee journée ya toll na ci ñeent fukki journée maanaam quarante journée lool sunu làmb xëy wax nu ko bu dee ay promoteurs yu tëgg lañ toll nañ ci vingt 24 promoteurs bu dee ay place waanaam ay sites yoo xam ne tëgg nañ fa làmb toll na ci juróom-ñetti sites yoo xam ne tëgg nañ fa làmb maanaam 8 combat ya tamit boo ko toppee mu ngi toll ci trois cent 368 combat yëglikaay ba moo na ko wax moom sunu làmb kaw yooyu tamit maanaam dur mu daanu ya tollu na ci juróom benni kaw yëglikaay ba moo xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ni ki noonu wan ñu tamit ka nga xam ne moo di Alioune Sarr ak départ ak na ko bira seen waaye tamit wan ñu Ama Baldé ak ka nga xam ni moo di Modou Lo mu mel ni combat boobu tamit yëglikaay ba indil na ñu ñaari mbir seen aw photo indil ñu ndem si yàlla sax ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye saison ba nag bu fekkente ne loola am na ci ay combat yëglikaay ba yemu ca la ca am tamit ci ay naqar yëglikaay ba ñëw na ci soo bëggee dëgg-dëgg ña ca génn àddina te bokkoon ci làmb nekkoon ay icône lamb bari nañu moo xam ka nga xam ne moo ca njëkk muy ka nga xam ne moo di Balla numéro un yëglikaay bi dikkal nañu tamit xamal ñu ne ci saison boobu ci la génne àddina ak ka nga xam ne moo di Boy Bambara ak ka nga xam ne moo di Njaga Saar yemuñu ca yëglikaay bi ñëw tamit ka nga xam ne moo di per Aline Diop ba nga xam ne tamit moo nekkoon entraîneur u Lansar yëglikaay ba dikkal nañu ci ci lu mel ni ki noonu lu mel ni ki nag même ci saison boobu tamit boo bëggee dégg-dëgg Ama ak Modou ba ma leen wax léegi yëglikaay bi na nag ci saison bii nga xam ne ma leen a bëri xam ne tamit moom moo jël sunu lamb door ba moom moo di kaay baax ci atum 2020 ba yëglikaay ba daal tey moo xëy toppal ñu la nga xam ne moom moo di saison ba yemu ca ba tey continuer na dina xam ne nag saison ba daa mel ni ubbiwaat ko mu war a commencer le premier octobre yëglikaay bi bëree moom maanaam daal CNC maanaam joxe waat na ay date ba ñu jàppaat la nga xam ne moo di làmb ji Tapha Tine Boy Niang la xëy fësalul nu ko dinu won ne combat boo daal le 19 décembre ca la war a am yemu ca Balla Gaye 2 Bombardier tamit le 7 novembre lay am Quench double moteur le 28 novembre Siteu Papa Sow cinq 5 décembre Reug guy gi Gui le 2 janvier ak yeneen date yoo xam ne daal am na sunu làmb moo xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ni ki noonu dinu ko wax moom yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu lamb mu nga xëy tamit di laaj ka nga xam ne moo di Garga Mbossé wala boog Sa Thiès ban adversaire lañ ko war a booleel ci diggante Garga Mbossé ka nga xam ne moo di Yékini Junior wala Reug Reug ku mu ci war a jël bare ak moom ab laaj la boo xam ne sunu làmb moo xëy samp ko yemunuta moom sunu làmb tamit am na koo xam ne ba mu ñëwee taxawal ay combat ci wàllum dóor mu ca am na leen loo xam ne teg na ko ca muy ay combat MMA muy gém moo get ma ngeen xam mu nekk ci réewum États-Unis te di doomu Sénégal combat yi nag beneen boo xam ne décroché seete na ko maanaam bu bees teq la muy diggante Malick Niang ak ka nga xam ne moo di Abdou Diouf ca combat MMA yi moo tax yëglikaay bi dañoo xam ne daal ñoom ñett nag mooy maanaam wala boog ñoom ñaar Abdou Diouf ak ka nga xam ne moo di Malick Niang ñoom ak ka nga xam ne moo di mobile ñoo fi ànde wutali réewum États-Unis ngir nag signé ay contrat ak moo get mobile sax combat MMA ya war na caa am moom yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb moo xëy tey daal toppal ñu lu mel ni kii noonu bu buñ fa jógee les arènes la ñuy dem les arènes moom la mu xëy andil ñu ko moom moo di Balla gay numéro 2 la nu wan la commencé atum 2014 ba jàpp 2017 yëglikaay bi na nag ñaari défaite ak ñaari année balance mel ni ki nag ñeentaat yi Balla Gaye yooyu lay daal soo bëggee dëgg-dëgg ñeentaat la yoo xam ne yu ko wex xàtt la ci biir carrière am maanaam la mu ca dund ci ay jafe-jafe ak ay mettit maanaam metti na lool ba yegg ca loola ba tey yëglikaay ba tamit ñëw na ci ka nga xam ne moo di adversaire Balla Gaye numéro di Bombardier maanaam moom tamit daal daa mel ni boo bëggee dégg dëgg ci weer yi nu jëm saison bu nar a xat wala boog lu nar a metti wala boog la mu teglante daal nar naa bëri moo xam digganteem mag la baneer ba nga xam ne ci wàllum MMA la te ñu war a jongante ci mois de septembre te bu ca jógee war naa jëm ci digganteem ak Balla Gaye ca mois de novembre mel ni kon boo bëggee dégg dëgg daal diggante ba am soree du ca am kon Bombardier fi mu nekk nii daal calendrier moom maanaam sarse ba yegg ci lool da koy def moom tamit yëglikaay ba nga xam ne moo di les arènes seen yemu ca ñëw ñu ñëw na wan ñu bira ma nga xam ne moom moo jiite làmb ji ak tamit la nga xam ne ni daal moom la def démb ginnaaw ba mu daje ak promoteur yi maanaam làmb ja fi mu nekk ni daal dañ koy commencé waat yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey les arènes tamit ñëw na boo ubbee yëglikaay ba ca biir daal ci wàllu làmbi simple ja saison 2020 jàpp 2021 am na ay champion yoo xam ne daal soo bëggee dégg dëgg moom trophée dañu dégg waaye gisuñu ko ak ay bët moo xam booy fay wala pakala wala usine doole ñoom ñent ñi daal maanaam daal wàllum trophée les arènes na ren moom laalu ñu ko fenn fenn xanaa kon ka ca tane sax moo di booy fay ma nga xam ne jot naa jël drapeau chef de l'état waaye bu loola moom maanaam ñoom ren boo bëggee dégg-dégg daal dañoo fëgg seen ay loxo ci wàllum ay torofe yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noon waaye yëglikaay ba nag fa mu ko tëjee maanaam ca beref ya wala boog fa la koy tëjee beref ya nag tey moom la fa ko wax ku aayewal sa moome te ku xalam di ca jaayu loolu waykat baa ko wayoon maanaam tey nag ku ne xam na ne moom mooy le premier septembre anniversaire am ci kuy anniversaire kii di wax ak yéen muy Babacar Equivox yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes nag delloo ko ca njukkal ñaanal ko ca gudd fan ak wér gi yaram kon gars yi tey mooy sama bésu anniversaire waaye les arènes kon maa ngi leen naan jërë ngeen jëf yéen tamit yàlla na seen journal boobu dem ba raw journal la monde ak journal yi nga xam ne nii nag ñoo ëpp doole ci àddina bi dem sax ba am ay télé ak ay rajo ndax nag olof njaaye ko wax ku la safooti faale ko te itam ku la nekkal ci naaj wi nga nekkal ci ko ci ker gi les arènes jaaraama jërë ngeen jëf kon nag dégg ngeen yëglikaay yi la ñu indi sunu làmb les arènes muy ay journaux yoo xam ne 100 pour cent làmb la ñuy def waaye comme ni ma leen ko waxee woon rek ah tey moom man maay anniversaire te wala fa ko wax ko ay wal sa moome may ñaanal ñëpp jàmm ah waaw ñooñu moom bii de bii de moom bett na ma moom joyeux anniversaire lii de xule bett na ma moom waa lii neex na ci xol de gâteau bi am na chocolat macha allah lii bett na ma de xule gâteau bi waay gâteau bi am na chocolat Babacar gato bi am na chocolat <laughs> voilà kon nag. Ah, sëñ Babacar merci merci mhm. merci beaucoup. waaw du wax sax damay bàyyi ngeen. parce lii moom ça le plaisir quoi xaw ma lan laa war a wax quoi. bii gâteau sëñ Babacar kon nag euh, bis bi ko moom donc le premier septembre le premier septembre sëñ Babacar. Mhm. comme niñ ñu ko waxee kenn amul. Mhm. lu lu dul sa bis. donc euh, bu liy amee sëñ Babacar donc euh, muy xam naa ne du du dara donc euh, mais on tenait quand même marquer le geste. Mm-hmm. def un un petit geste. Mm-hmm. parce que yow tamit da nga da lépp lu ñu la defal ci làmb rek da nga koo da da nga koo mérito. parce que yàgg nga liggéey ci làmb. Mm-hmm. depuis. Lutte TV depuis euh, Leewtoo ba tey e- Equivox mhm. liggéey liggéey bi rafet na kaar kaar macha allah kon nag lu mel nii su amee mhm. kenn amul lu dul <coughs> bi kii kii bisam mhm. donc ñun waa les les arènes. Mm-hmm. muy euh, un groupe un groupe de presse quand même buy soog a ñëw. journal bi ñëw gu mais ñuy ñaan yàlla mu am ay rakk ay rakk yi ay ay rakk rakk rakk incha allah. Mm-hmm. donc on tenait à venir. Mm-hmm. jël sunu cadeau bu ndaw bi sunu gâteau bu ndaw bi au au nom de vraiment le group le le journal les arènes ak lépp. Euh, ca ca kaw ba ci suuf. vraiment ñu jagleel la ko ñëw bokk ak yow bi euh, bis bi. donc vraiment di di la ñaanal yal na la ko say sët wax. amiin nga dem ba say sët vraiment say sëtu bopp ñoo ñoo naan la joyeux anniversaire. lépp loo bëgg ci sa ci sa àddina te mu gën ci yow. nekk lu lu lay war a avancé loo yal na ko yàlla jox. lépp loo bëgg ci liggéey bi. Mm-hmm. vraiment te mu nekk lu lu gën ci yow. Mm-hmm. gën ci sa njaboot yal yal na la ko yàlla defal te mu nekk lu gën ci vraiment kontaan nañ. lii rek lañ mënoon def pour kii parce que tamit pour wax la ne la gis na liggéey bi liggéey bi dafa dafa rafet ngeen teg ko ci yoon merci ñun ñuy bind mhm. ngeen koy yëgle di ci mhm. ki ngeen ci liggéey liggéey bu am solo buñ doon bind rek ji mu ci yem peut ñu ñu bëri mën nañu bañ a xam waaye lii ngeen def dafa am solo donc liggéey boobu vraiment ñun mënuñu leen fay

di suivre Equivox TV. Ah, di leen wax tey eh, seen seen seen reporter moo aye. Mhm. mu nekk tamit reporter boo xam ne Abu. Mhm. Euh, man dama ko dama ko dama ko miin bu baax. parce que ah, euh, cotoye naa ko. Mhm. Euh, même bu dee un an walla deux ans. jot nañ ko jot nañ ko bokk ci benn entreprise. liggéeyandoo. parce que yenn internet yi xam naa ne miin nañ suñu kanam ak suñu gàddaay yi waaw loolu am na ak ñulaay yi <laughs> waaw Abou Babacar nekk nit koo xam ne euh, baax na oyof na euh, bëgg na nit bëgg na rafetal bëgg na ànd tey jii ni nga nekk ak ay nit nekk yombul comme ni mu ko waxee sama mag la parfois dañ doon laalante bu liggéey jotee ñu laale parfois mais buñ ci jógee rek daal di jàll ci leneen parce que ñàkk ànd du ñàkk loolu noonu mais à chaque fois rek dina wane grandeur dina wane esprit de dépassement te dina fexe Eh, di boole di rafetal di mhm. koy ñaanal rek eh, anniversaire bi nag mu yàgg ko féete dem ba ay doomam di ko ko féeteel mhm. mu ànd ak sutura ak xéewal ak wérgu yaram ak lépp Babacar yaa xam li nga bëgg nag ci métier bi ah. yàlla yegg la fa fu sore sore sore incha allah merci beaucoup joyeux anniversaire merci ami <laughs> merci beaucoup jërë ngeen jëf euh, bon da di taxaw parce que li tax ngeen di taxaw mooy bon man dama naan damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mais di gërëm tamit sama ay way encore une fois di ñaanal suma yaay fi mu tëdd yàlla na ko yàlla xare aljana suma papa tamit maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal fan wu gudd ak wér gu yaram barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax defe naa ne euh, lu waaye wax mu sottee rek sunu borom a ko dogal te ñun en tant que jullit ci ndogalu sunu borom lépp ci Moustapha sallallahu alayhi la aju ak tamit kon su sunu ay wayjur yi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale sunu ñëw àddina ci ñoom kon damay sant ñooñ mais surtout tamit damay sant fi nga xam ne fa laa jógee muy suma dëkk. encore une waa ak yaay yëpp maa ngi leen di sant di leen ñaanal parce que tamit nit ku ne am nga foo bokk am nga foo jógee. te des fois nit bu dee def leen li mu réussir jàppal ne dafa am fu ñu ko formé wala fu mu jógee. te lépp lu ma am rek ak fu ma mën a dem rek ak lu mën a xew ci man rek dama naan waa ak yaay la euh, bu loolu amee nag li nga xam ne moom mooy wàllum presse comme ni nga ko waxee Lutte TV laa ko commencé di ko def yaa ngi dégg donte lu jiitu loolu nag daan naa fréquenté làmb yàgg na loolu may fréquenté lam defe naa bu ma la nee ba Yaxya Jóob Yékini di nekk écurie Ndakaaru bi fa doog a nekk muy lu bees mhm. ah ñuy entraîné stade Assane Diouf mhm. Yékini su ma jumul boobu rëbës la dëkk kër bi ma ko waxee jof yoon ndeysaan dafa ma xoolaat mhm. loolu xam nga yàgg na te loolu lépp bëgg làmb bu ma ko yóbbee ma nekk xale bu tuuti Xaadim Njaay jamono écurie Mermoz yooyu yëpp maa ngi koy wu ak ay jamono yoo xam ne yu yàgg la yooyu yëpp bu ñu doxee tey nag ba tey dikk ba toll fii dañuy sant yàlla mais bon dinaa sant koo xam ne tamit wax dëgg yàlla lépp moom la mu Ibrahima Faye Beuz du ma tàyyi di ko wax mm-hmm. parce que euh, am na loo xam ne abu mm-hmm. ku ko fàtte rek doo gor parce que bu ñu ma xamee grâce à Beuz la mu jaare ci par groupe baax parce que li indi loolu mooy dam doon def ay ay jàngatu làmb nii ci ay groupe mm-hmm. whatsapp Beuz nekk Canada am xelum def li TV boobu sax taxawal na ko mais xëy na li TV nekkaguloon lu lu lu kii lu officiel yaa ngi dégg mu nekk ci dikk yi après bi mu bi mu ñëwee Canada woo ma këram ñu toog waxtaan mu ne ma que dama bëgg nga ñëw di def lii fii benn yoon ci semaine bi. Mm-hmm. ma di ko def mu mu gis ni affaire yaa ngi avancé mu ne ma yokk ko ñu yokk jour yi dem ba ñu ko def tous les jours yooyu ñëwee ma fekk foofu nga xam ne suma ma rakk la su xarit la muy Lamine. parce que boobu moom laa fekkoon foofu moo daan yor benn téléphone am ak micro am dem di jël mbër yi man bi ma ñëwee moom mu bàyyi loolu jox ma micro bi kon dama naan bés encore une fois abu awma fayam yàlla na ko yàlla defal jàmm entreprise bi mu jiite tamit yàlla na si yàlla teg loxo ñu liggéey ba ma fay jóge tamit dàqu ma man maa toog a toog ba mu neex ma jàpp na xëy na war naa utiwaat benn expérience mu jóge fa dem utiwaat expérience te expérience expérience ba mu uti woon tamit rëccuwuma ko fekk borom tamit soxla woon ma muy Pape Thialis Faye parce que ba may dem fekk naa fa Aïssa Faye fekk fa Ndey Kumba Fall te Ndey Kumba Fall xam naa ko si làmb muy bind mook Aïssa avant man may ñëw di wax si làmb kon ñooñu c'est des journalistes yu nga xam ne yu diplômé lañ jàng ñu forme leen ba ñu nekk li ñu doon man nga leen a seen ñuy dem nag nga xeeb leen mais dañu am xam-xam ba ma partagé ak ñoom tamit liggéeyukaay muy Leewtoo rëccuwuma li tax ma partagé ak ñoom parce que bërin lu ñu redré maanaam lu ñu jubbanti ci man muy ay sax ndey ku par rapport ak seen xam-xam yaa ngi dégg kon loolu dama koy wax ñëpp di ko ñëpp dégg ko moom ay sa fay mi maanaam ñaa aw ma fayam nday kumba Fall kazalika naka noonu parce que ay bi ma fa ñëwee leen ay journaliste la ñu ñoom te man du ma nekkuma journaliste de formation comme ñoom ni ñu ko nekkee. xëy na am naa don wu euh, voix wala yeneen ak yeneen loolu yàlla mooy maye. Mm-hmm. mais terewul dañ ma dañ ma doon tegal ay lu nga xam te ma wax loo xam ne leer dama li sama njariñ lay doon te maa ngi koy gis lu may gën a avance kon nday kumba Aysa yow tamit yàlla na la yàlla fay. Mm-hmm. ah sa njaboot bi nga jotaam yàlla na ci yàlla teg loxo barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yokku ko di la nuyu di nuyu sa yaay mère sugu ak sa ay frère ak say sœur yépp di nuyu sa borom kër Mouhamed Niang. Mm-hmm. ah di la wax nekk daal yàlla na yàlla defal jàmm day kumba tamit noonu laa koy siyaare di siyaar groupe les arènes les arènes yëpp amu nag yow encore une fois mention spéciale parce que nit maanaam Aïssa di nga jóg di dem nit ki lay topp di la suivre de A à Z te mësuñoo partager fu ñu liggéey mais tax dafa mel ni ñoo bokk fu ñu liggéey tout le temps yaa ngi may woo boo gisee erreur ne ma sëñ Babacar lii man maanaam di ma di ma teg ci aw yoon yow ak ku mel ni Boubacar Niang ak ak ki nga xam ne moom moo di Ibakan vraiment yéen ñooñu awma seen fay te mosuñoo bokk fu ñuy liggéey mais gis naa bu baax a baax ni ngeen ma jàppalee yow nag vraiment nga nga nekk ci koo xam ne ku spécial nga ci parce que lii nga def tey bu la neexoon du am nga nekk sunu lamb nekk journaliste plein ñëpp xam la ngay liggéey liggéey bu set jóge fa toog benn temps del dem record ba xëy xëy am xalaatu former benn groupe tey groupe ba nga nekk fa ak ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ xam ngeen làmb kon groupe boobu maa ngi ñaan yàlla yàlla na ci yàlla teg loxo mais li ngeen ma defal vraiment ça fait plaisir kontaan naa ci trop trop trop trop trop trop barke alxuraanu karim am naa ci mbégte lool lool lool fi ngeen ma ko indil tamit am naa mbégte pour ngeen indil ma ko parce que fii tamit bi ma fii ñëw dama fi ñëw avec plaisir ndax ñëw bi ñëw plaisir mooy kii lay soxla woo la la maa la soxla mm-hmm. bëgg ñu liggéey parce que lii ak lii ak lii ak lii te ki moom kër gi ak ka àndal muy badu bañ may ba ba ñoom ñoo ma woo ne ma dañ ma soxla man tamit bañ ma ko waxee wax ak man ñu nekk ay Sénégal ma ay sénégalais ñu teg ko ci dëgg ñu ànd liggéey te defe naa am na ci lu bari loo xam ne dara réeru la ci ndax yow du def lu ma la dul wax ci àddina jamais xalaatuma ko sax kii xalaatuma def ay lu ma ko dul wax parce que nit bu lay wax dëgg la parce que xam naa jikkoom du caaxaan xaw ma ko ci bokk nit ki li nga xam ci moom nga mën a wax kon tey loolu ça fait plaisir may ñaan tamit groupe bi ma ne muy Equivox yàlla na dem ba gën a ba kawe mais vraiment li ngeen def daal sedd na su ma xol trop trop trop waaw man anniversaire mosuma ko feete daaw rekk ci mujj xaw ma bi ñu nekkee li tii ba ma fàtte ko banaan man du tee sama anniversaire nday kumba faala kii di ma ñaawal ne ma nag ñaw anniversaire ba passé na dootoo ci mën a dóor kon ren tamit su ñëwee c'est la première fois ah, ma feete anniversaire loolu tamit lenn moo am bu la yàlla booleeg jigéen yu baax danga nga koy wax sama aaw aw ma fayam teneen yàlla na ko yàlla fay parce que yàlla boole nañu ba ñuy sëy yàgg na 2005 la ñu marié wu ba fii ma la koy wax te nit mësuta ñëw àtte ñu yàlla na yàlla saxal loolu muy nit ku baax di doomu séeréer muy nuyu ay waajuram ña nekk daarak ak ña nekk ndondol di ko ñaanal yàlla njaboot gi ñu séq yàlla na ci yàlla teg barke parce que tamit muñal na ma te bëgg na ma muy suma aawo muy aawo boo xam ne bu doon baaxee tax ku ku am aawo dootoo takk ñaareel kon mën naa ne mën naa yem ci moom mhm. mais nag yàlla moom moo ñu sant ñu takk ba ñeent li tax mooy dafa am loo xam ne xëy na mhm. da koy bañ ñu dugg ci kon kooku maa ngi koy wax mention spéciale Tene Ngom di ko ñaanal jàmm te noonu ma ko ko waxee la ko ko sama ay mbokk waxe du man maa ko ko wax de mais sama ay mbokk samay mbokk ci côté yaay ci côté baay noonu lañ ko waxe muy sama aawo aussitôt tamit ki nga xam ne nag moom moo feeñal anniversaire bi mooy ñaareel bi par là moom moo ko feeñal parce que man mun ne naa leen musuma ko feete man maa toog ba këram naan ma damaa am xew le pre euh, ma ne ko xew lan mu ne le premier <laughs> billaay wallaay di ma ko wax ma naan ko xew loo xew leeti mu ne moo dama am xew le premier ma ne ah kon baax na ma toog jàpp sama njaamur lamin laa wootanteel téléphone ñuy wax téléphone maa ngi moom mu ngi toog Lamine ne ma borom la premier ma ne ko lan mooy loolu mun ne borom le premier ma ne ko ok kon arab lii la may wax arab ne man sa dama rëy Lamine su ma yëgoon sa du ma wax lamin dara ndax ndax mu ndax ma bett la kon moom itam lii su amee arab tamit jërëjëf Aram Ndiaye sama deuxième femme maa ngi koy ñaanal tamit muy xale bu yaru bu am diine bu am kilifa mm-hmm. parce que loolu la ko ñëpp waxal mm-hmm. ko ñëpp waxal nag yàlla na sax ci moom kon maa ngi koy nuyu di nuyu ay waajuram ñi nekk tàllañ ci ña nekk mbomboy ña nekk lambaay papaam depuis fa nga xam ne moom mu di ci euh, mu nga Europe mm-hmm. Assane ak mm-hmm. Ousseynou maa ngi leen di nuyu ak Malick ñooñ di ay waajuram mm-hmm. di nuyu tamit yaayam faatu Kama ak ay nijaayam ñoom Ndiame Kama ñoom ñëpp maa leen di béggee ñoom Abdou Kama tout tout le su ma limee dinaa juum mais lii daal ça fait plaisir parce que tey moom mën naa ne sax jarut ma fiy nekk sax naan ay journaux ak yi parce que dafa am loo xam ne su amee moom dañ ko fa yemale rek quoi mais encore une fois daal Mamadou Seck tamit borom kër gi maa ngi koy jaajëfal parce que lu la waay a wax xëy na euh, man nga ne comprendre ko jafe na mm-hmm. mais nekku nit ku ku soxor mm-hmm. problème bi mu am nag mooy bu bëggee wax dara da koy wax mm-hmm. dafa nekk nit koo xam ne des fois maanaam dafa am nit ñoo xam ne jom da leen a sóor ba tey Aïssa Faye bu ñu la waroon jox 1000 francs mënuñu la koo jox ah te ñu xam ne ñoo la ko war a jox jaral na leen dootu leen ñu làqatu. dafa boole nekk Saloum Saloum ak Bawol Bawol. ak Bawol waa ak waa Dakar mu ñëw macha allah. voilà <laughs> mu doo ko xam. doo ci moom mais moom it maa ngi koy jaajëfal <laughs> Aline Badara Diouf tamit merci beaucoup Badou moom tamit nekk nit koo xam ne nee naa ko vraiment moom om de dialogue la. boroom xol bu rafet la waaye hélas tamit mention spéciale hélas ju parce que man maa ko mag te moom mooy suñu kilifa fii mais mosuma koo dégg mu xuloo fi ak kenn hélas te moom pourtant man ku naqare encadré la ay safay mi xam na li may parce que liñ daan jàmmaarloo bëri na mais lépp du génn nag si cadre de ci liggéey rek lay doon yaa ngi dégg ñoom caméraman yi xulle yaa ngi dégg fii ko fekk bi may ñëw fii moom tamit di xale bu yaru di doomu Saalum dëkk Nioro mm-hmm. mention spéciale ak ñi nga xam ne nii ku mel ni Balde moom tamit maa ngi koy remercier Abdou Saliou mais Habib mais tamit di rakku Seck mm-hmm. ku jaral remercier parce que mu ngi jàppale magam te itam royukaay la di ko nuyu bu baax a baax a baax encore une fois nag di nuyu fan fans club Babacar rawatina ñoom ñi fa ne ñoom grand laay jiga Pape Ndiaye Cédric jërë ngeen jëf ak fans club Equivox ak Babacar tamit du leen fàtte ñoom Adama Ndiaye ñoom Arona Camara ah ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee ñoom Awa Diop du ma fàtte kenn su ma limee dinaa juum parce que dafa am ñoom dañu former ay fans club ngir ngir Babacar muy ñaar kon ñooñu amuma seen fay kon jërë ngeen jëf waa làmb tamit awma seen fay mm-hmm. ca kaw ba ci suuf nag parce que am na lu nga xam ne reconnaissance la te waa lamb mën naa ne am am nañ reconnaissance boobu ci man des fois nag ma juum njuumte yi ma juum ci lamb yëpp maa ngi leen koy jéggulu barke alxuraan su ma sañoon lépp luy jóge ci man moo xam suma ma làmmiñ koy wax wala muy ku ma dalal la lu baax lay doon lu rafet lay doon mais doomu aadama nag moo matul te ay dese day am mais yéen daal jërë ngeen jëf kon li ngeen ma defal kon maa ngi wax daal sama soppe yi gis ngeen li ma waa les arènes defal gis ngeen cadeau bi nii xulle ah gâteau bi macha allah. parce que lii faw ñu gis ko lii tamit yéen doomu ak yaay gis ngeen journal bi ñuy wax les arènes ñoom ñoo def lii waa les arènes waa les ñoom ñoo def lii andil ma gâteau bii ci seen ndigalu kilifa ndax Abou Ndour moom moo sañ ci kër googu ànd def ko ak ñoom sa fay ak ñoom Sori Touré ñoom Ndeye Kumba ak ñeneen ak ñeneen ay journaliste plein ñoom Roqee Thiam ñoom jëm leen fay gis Roqee Thiam it di mention spéciale laa koy ndax gis naa muy def ay liggéey yu am solo biir Europe Roqee Mamadou Koné waaw groupe bi yëpp États-Unis waaw Mamadou Koné parce que tamit damay gis seen liggéey macha allah mu mel ni ki daal yéen a ngi ci aw yoon yal na leen yàlla sàmm sunu làmb tamit maa ngi leen di remercier mhm. parce que li tax mooy bi bi may takk soxna mhm. bu ko ñu bëri xamee mhm. ah si presse bi grâce à sunu làmb te loolu Abdoulaye Dembélé moo ko def muy koo xam ne tamit maa ngi koy remercier mais mbër yi da A à Z bàyyiwuma kenn reporter yi sama moroomu reporter yi waaye nag sama xarit suma rak suma doomu ndey kooku du ma tàyyi di ko tudd ndax dafa am loo xam ne boo ko sekkee nit te nga mag ko ah muy sarak te yaakaar ma ma ma gis mu di ma lu baree bari mu di ko jubbanti ci man mm-hmm. kon Lamine jërëjëf yow tamit du ma la ma sa fàtt suma xarit yëpp sami ami dafaas yi ñoom mbay ngoom Abdou Aziz Ndiaye hmm, di doomu ak yaay ñoom ñëpp ñoom Daouda mbay sama ami dafaas suma grand frère yi ñoom Modou ak suma ay frère bopp ñoo xam ne ñoo bokk benn baay ak sama ay sœur ki ci mag di Ami Ndiaye maa ngi koy nuyuwaat ñoom Assou Ndiaye Ngoma ah Saliou Diom àll ñoom ñëpp ibu Diom Ibou Baye Elimane ah ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier mm. ami du ma fàtte kenn kenn parce que bu ma limee rek dinaa juum mais l'essentiel que mm. famille bi yëpp daal famille bi yëpp samay mbokk yëpp sama ay doomu ndey tamit suma grand paat ñaan maa ngi koy wax mention spéciale mm. ndax ba ma nee Ndakaaru ba tey mag moom ma nekk ñu suñu yaay yi toppalante maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam Kumba caw ak ñaara deuxième femme ay soxnaam muy Siga Ngom ñoom ñëpp maa leen di nuyu di suñu kilifa ci côté boobu mooy suma nijaay njàmm di ko ñaanal yàlla ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak suma grand suma doomu nijaay badangom nga xam ne moom mooy suñu mag sama doomu nday yëpp ñoom Moussa Faye Omar fàttewuma kenn ak ñoom Coro Fatine tout le monde tey nag journaux yi lii la indi abu Ndour lii moom yéen a ko yéen a maanaam sunu làmb ñëw na ci saison bi ak li ci am ci ay jafe-jafe ak ñi ci ni mu ubbeek ni mu tëjee mm-hmm. ak ñi ci génn àddina mm-hmm. ah loolu la indi tey ak ñeenti ati Balla Gaye 2 yoo nga xam ne nii def na ko ci làmb ak jafe-jafe yam ci jot a dund loolu indi na ko ñëw na ci Bombardier ak calendrier bu chargé loolu ñëw na ci waaye ñëw na tamit ci Bira Sène mi woon dem promoteur yi waa CNG ba joxaat leen ay dat loolu les arènes la ñëw na tamit ci ñeenti mbër yi nga xam ne nii seen maanaam da ren trophée gisuñu ko waaye nag fii nag la ko mujjee ci bref yi gis ngeen ko nii ah Babacar la mujjee tey di ko joyeux anniversaire bind nañ yemuñu ci ñu jël photo teg yemuñu ci ñu defaraat cadeau ñu defaraat gâteau indi te lii xaalis a ko def kon jërë ngeen jëf abu yow laay bàyyi nga tëj ñu tàggoo waaw waa ñu tàggoo rek xanaa da nga wax lépp suñu Babacar mooy li nga wax rek yàlla nañu ko def ay ati ati ati incha allah te beneen yoon bu ñu ñëwaat nañu fekk euh, daal yokkute ci ci ci côté côté côté côté bu nekk mhm. muy si yow sa bopp muy si ci kër gi mhm. vraiment ñu ngi koy ñaan ñu defaat ko daal at yu bëri yoo xam ne daal jàmm moo koy lal vraiment daal euh, ñu fekkee daal lépp incha allah te yàlla daal yokku ñu may ñu yokkute ba ñu yëg ko incha allah ñu ñëpp nekk lu gën si ñëpp incha allah amin waa diaspora bi tamit du mm-hmm. dañ ciy jàpp ci liggéey bi ci côté yëpp diaspora bi encore une fois maa a baax a baax parce que su ma limee tey dinaa juub waaye faw mu tudd waa Afrique du Sud parce que dafa am ku ñu wax daam jub doo ñu tudd kon daam maa ngi nuyu waa Afrique du Sud sénégalais nekk foofu yëpp mais diaspora bi yëpp yëpp yëpp ñëpp maa ngi leen di bëggee Pounamu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp depuis Maroc du ma fàtte kenn su ma limee rek juum waaye am na koo xam ne wala ñaar ñoo xam ne ay jigéen lañu ba ci ñett muy tuuti yaay Sarr moom bañ commencé ba tey gis nañ ne ni ñuy toppee di ñu bàyyi xel ci li ñuy def waaye mention spéciale à soxna Asi Diagne bu xarañ loo depuis Mauritanie Asi kenn du moom waaye Awa bu tuubaa tamit bu Balla gay kenn du moom kon yàlla na jàmm yàgg senegal di nuyu tamit waa groupe baax Massamba Dieye ndax moom bu ñu xamee baabakar à travers parce que dem naa ci ay plateau télé ak ay rajo te yoraguma micro en tant que kuy liggéey te loolu groupe baax moo ma permettre woon loolu ba nit ñi xam ma kon Massamba Dieye ak waa groupe baax yéen tamit yéen lépp rek yéen la xulle yàlla na jàmm yàgg Aïssa Faye kontaan naa yaayi paate ak njaga ah séeri Mohamed ñaa waaye nag nee na lay bañ de <laughs> Aïssa Faye de wujj rek lay bañ <laughs> <laughs> ok ba am ñoo far jaajëf am leen jàmm jërëjëf